nu mu sell mi nee na ci jëf ya saar juróom aaya fukk ak ñaar ba aaya fukk juróom benn bi loolu amee ay kéemaan ak ay firnde yu bare di xew ci nit ñi jaare ca loxoy ndaw ya ñëpp di booloo ca werandaa bu suleymaan ca kër yàlla ga te kenn ci ña ca des ñemewu la booloo ak ñoom waaye nit ñépp di leen màggal moona ay nit ñu gën a bare góor ak jigéen di gëm borom bi tey taq ci ñoom nit ñi indil sax ñu wopp ca mbedd ya teg leen ci ay lal yu ndaw ak ay leeso ngir bu Pierre di jaar donte takk ndeeram sax yiir ñenn ci ñoom nit ñu bare dajaloo jóge ca dëkk ya wër yerusalem ñu indi ay jarak ak ñu yarab yu bon sadd te ñoom daal di wér